asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ku ci nekk rek wàccuwaay bala yàlla wàccee ñoo ngi la fay teg ca nam war ginnaaw si loolu le dañu leen di fas yéene xamle ak ku yàlla may ci li mu yëm koo xamante ni bii dañu naan rek wedd gis bokk ci ñu gën koo xam ci Malick Ba borom àll bi waaye tamit moom Malick Ba borom àll bi ku yàlla may xarañteef la ci li muy yëngu di ci jëflanteeg doomu aadama yi di ci dimbalante ak ñoom lu jëm ci wàllum càngat wala sax jigéen ju taxaw koo xamante ni bi dafa bëgg am doom wala xamante ni bi ak juboo la bëgg ci digganteem ak borom këram wala koo xamante ni bi yëg na ci yaramam loo xamante ni bi bokk ci Malik ba borom àll bi dina ci jëflanteeg moom te nag weddi gis bokk ci wala sax koo xamante ni bi muslaay moo koy yëkkati ndax ku ne xam ne ni làmmiñ ak bët lu am la nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay la ngay yëngatu nga bëgg mu jëm kanam wala sax nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay ku ne xam ne ne pexem noonu dafa yaatu nga bëgg pexem noonu du la fa mënal dara Malick ba borom àll bi bu jëflanteeg yow incha allah da nga gis ni xam-xam rek woo yow mi nga xamante ni bii da ngaa yëg ni say mbir dafa kale soo ñëwee ci Serigne Malick ba borom àll bi la incha allah dina ko décaler dangaa nekk di jàng toll ci jamonoy examen Serigne Malick Ba mi ngi ciy dimbalanteeg ñu baree bari ñoo xamante ni bii kat xawma lu ñuy ci li waaye du ñàkk jëflanteeg kili di borom àll bi waaye tamit xam-xamu boroom àll bii di Malick Ba làmbe na ba ci sport bi bépp équipe bu bëgg a gën di jëm kanam ci ay victoire yu muy ame wala ay trophée yu muy gagné wala sax nga nekk joueur naam waaye nag li ngay rêve ëllëg mooy nga signé pro fi ñuy dégg grand joueur la fay dégg borom àll bi li Serigne Ba mi ngi ciy dimbalante ak ñoo xamante xamante ni bi li ñuy réccu mooy li ñuy yéex a xamante ak borom àll bi ndax kër Serigne Malick Ba ku jëflanteeg moom xam ni jëflante ak ndaanaan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bi boo jokkook moom nga waxtaan ci ak moom dina la ko defaral comme ni nga ko bëgge ndax boo déggee sëñ Malick ba borom àll bi xam nañu ni àll li mu ëmb bari kon xam-xamu borom àll bi le di sëñ Malick ba li mu ëmb bari na kon ku bëgg ci yii wala bokk yeneen yu dul yii nga woote ci bile numéro 78 446 69 33 78 446 69 33 kon nag wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ha ha ha macha allah yaakaar naa ne am na solo Kalidou nii la demee nag saa bu ñu wax sekkee waxtaan macha allah danga nga naan première waxtaan bi ak deuxième lan moo gën a neex macha allah yëgante la ci suñu biir parce que yaakaar naa ne moom nit bu dajee ki muy roy day am mbégte sawar ci waxtaan ak moom mais moo Modou yaakaar naa ne beneen combat taxawaan na fi muy Sa Thiès ak Reug Reug <laughs> waaw Sa Thiès Reug Reug maa leen di nuyu suma ñaari frères yooyu di leen ñaanal ñoom ñaar seen combat que le meilleur gagne mais mënu ma si wax. sérieusement mënu ma si wax mënu ma si wax quoi bàyyi mu sedd <laughs> la xew. non mënu ma si wax mënu ma si wax mënu ma sori ci Sa Thiès rek rek. ay séance waaw ay bagage ay mbir la yoo xamante ne mënu ma si wax quoi yow kii moo daan man sama papa mooy sama àdduna sama papa mooy sama life ku ko tegul fenn teguma la fenn du ma wax ci sa dara baax na nañ jàll à autre chose s'il te plaît damay bañ a jooy maa ngi bëgg a jooy parce que bu ma waxee jooy billaahi macha allah xam naa ne dinaa la ko nangul du ma ci xuus ak yow affaire yi passé na si jàmm mais ñeneen ñi ci doon wax te bokkuñu ak sa papa dara nan la leen sa papa war a jàppe ak yow fan nga leen war a teg. waaw xam ni gis nga ah, mooy li ma lay wax léegi rek gis nga mu anta àdduna dara dara kenn moomul àdduna dëgg rek moom àdduna yàllaa moom dëgg te yàlla moo koy joxe yàllaa joxe yàlla dëgg la yàlla bëgg te mooy atte dëgg la yàlla bëgg mooy atte moo seetaan tamit moom yàlla suñu borom. <laughs> dégg nga gis nga Père dëgg la wax keneen ku génn wax leneen nit ñi xam nañ dëgg te àtte nañ war na yàlla bëgguma ñu débattre ci bàyyi mu sedd. jéggal naa la ko damay wàcc rek ci Franc ak Sokh. waaw bu neex. waaw encore jàmbaar. ñoo ko tëggaat. muy combat boo xamante ne ni déjà loolu finaal la. finaal final la Sokh Franc ku daan hmm. ku daan. da ngay ñëw. Sokh Franc ku daan da ngay ñëw fekk si da ngay ñëw fekk si ngay ñëw ci Sa Thiès beeg Reug Reug non Sa Thiès beeg Reug Reug bi sa Sa bu dee dafa am ndam ci Reug Reug du bëreewaat ak keneen ci ginnaawam day dem Reug Reug aussi la même chose mais maanaam si te si te don kii Sokh Franc ku daan da ngay fekk si classe dafa am classe booy fekk si dafay am fooy bokk yi tey jii ñoom ñaar ku daan da ngay dugg ci loowu ñoom ama neex lagro Sa Thiès Boy Moussa Ndoye da ngay bokk ci ci Garga Mbossé da ngay bokk ci antichambre VIP yi voilà Malick Niang ñu génne ko ci bàyyi na la am <laughs> Yékini Junior da ngay bokk ci antichambre boobu bu soq daanee bu franc daane sok day fekk si Papa Sow ci classe bi bokk koog bu soq daanee day fekk si Ama Baldé booy Niang ci classe bi sa si ñoom rëq moo tax combat la boo xamante ne ni combat bu am solo la ci seen carrière di wax soq na ko jël au sérieux bi na ci liggéey doole tere bien ma ca Maroc bu dee doole la fay liggéey na ko liggéey bu mu ci caaxaan benn yoon bu fekkente ne da ngaa bëgg daan franc soq boo bëggee daan franc secret laa lay wax bu dul dañ billaahi indil doole indil doole ju bari wax ju tuuti jëf ju bari entraîné entraîné ba wow bëre contact bu bari franc moom it dafa nekk di bëre combat. taxawal ci sox man lii nga wax am na ku ma ko laajeen ma wax loolu. dañuy yëgante entraîné ba doole du daan sox du daan franc parce que franc contact kat la franc ci benn guddi da ci daan 39 mbër man rek la mënul daan franc man rek la mënul daan ci làmb maa ko jommal. mais Franc ci benn guddi da si daan 39 mbër. léegi kooku noonu pour nga daan ko da koy indil doole dooley 39 mbër yooyu yëpp maanaam yow doole nga koy indil bu wow kongu mën koo tenir mën a tenir combat bu gudd mën a tenir combat bu gaaw mën a tenir combat bu gudd pare pour combat bu gaaw yaa ngi dégg li ma lay wax ba pare jaa ngi xeex parce que Franc bërekat la da ngay xeex ak moom te tëlewul xeex gëlëmal ko dóor ko ay coup ba mu jaxasoo nga dem daani ko. soo deful loolu doo ko daan Franc ma pour nga daan sooko ci bëre bi am na fi ci doole bi am na fi ci xeex bi am na fi mais ci respect bi na fi na na na yokku respect. moo gën a métti préparation pour daan Franc. Sokh yi gën a métti préparation parce que Sokh war am yu mu prouvé ndax li Franc prouvé ci lutte simple Sokh prouvé wu ko. parce que nee na dafa jël combat bi ñëpp ne ko Franc la. ñëpp ne ko wala man mu am lu ci war a wane kon combat la boo xamante ne nii. franc na ci entraîné moom tamit ba am doole te xam ne bu génnee ci bu génnee ci soq ñi ci kanamam ñoo ëpp doole soq comprendre nga respecté ko parce que soq ndaanaanu bërekat la gàmmu gay la mujjee daan ndaanaanu bërekat la de ay ndaanaan la fi daan mobile ku ko daan ndaanaan nga te mobile daa mën a bëre Bour maa ko reporté mu nekk ba daan fi daan fi Mambay ñaa daan fi Vandam xaw ma ndaanaan la nañ ko bàyyi xel daan fi Youssou Ndour bu lebu gi ndaanaan la kon Franc na ñëw ak sérénité indi doole moom it indi fulla indi confiance bu wóor ñëw bëre ci digganteem ak soox ñoom ñaar kilomètre gañ bala ma laa bàyyi combat boobu kan moo ciy favori en lutte Franc mooy favori en boxe soox mooy favori donte mënul xeex trop mais soox mooy favori ci xeex lutte mooy favori waaw. macha allah jaayante doole mën na ci waaw bu sox indee doole bu bari jaayante doole mën na si am bu sox indee doole bu bari jaayante doole mën na si am te ci premier round bi dina metti waaw laajoo ma favori Papa Sow Siteu de Papa Sow Siteu favori ci lépp Papa favori ci bëre mooy favori ci xeex mooy favori ci rapidité mooy favori ci lépp Papa Sow 60 Siteu moo tax maanaam ñi du seetaan làmb wala ñi nga xamante ne ni. duñ ay sportif mënuñu laa dégg parce que boo waxee li ñu ne papa waaw teg keloog bi ma waxee ci waxu papa bi ñu ma doon saaga ne si taay sama xarit mais mi ngi noonu danuy wax rek pour xamal leen sport la ñuy analyser li ñu gis papa saw bu dee bëre si ta daaxul bëree papa bu dee dañuy jugé bëree papa moo daaxul bëree si ta maa ngi siyaare <laughs> bu fekkee ne dañuy wax xeex si ta dëgg la door na mër mu daanu mais li papa wane ci xeex si ta waneeku ko macha allah moo tax ñu jox ko favori bi. combat buy neex la jàmbaar yal na leen si yàlla defal jàmm et eh, lamb yi des yëpp ci saison bi yàlla def ci tawféex def ci ndam ba lépp loo xamante ne ni war na si am rek sunu borom mottali ko. macha allah am na am na solo fi may fi may jeexalee yow mooy li nga xam ne moo xew ci réew mi moo parce que gis nañ fan yi passé benn femme boo xamante bi nii da doon accouché yàlla dogal mu ñàkk si bakkanam médecin Sénégal ban taxawaay la ñu war a am si hôpital yi. am gaay ma. ayca ci biir. fan yi mu mel ni li xew ci réew mi moo. tegal ni mu teg ko ci suuf dina baax bàyyi <laughs> ay Baye Fall lañ mu mel ni fan yi li xew ci réew mi moo lëmbee lépp doy na waat trop benn femme boo xam ne da doon akul sa far ñàkk si bakkanam médecin sénégalais ban taxawaay lañ war a amaat ci maladie ñuy taxawaay respect taxawaay xam ne ñi ñuy taxawu wala ñi ñuy faj seeni ay frère lañu ñoom dañoo waat médecin dañoo waat de ne dañuy faj nit ñi Aliou médecin du day waat buy terminé day waat ah ne dina respecté liggéeyam ci yoon loolu bu ko médecin di def kon kay liggéeyam da ko war a respecté mais nag ñun senegal du problème médecin rek de ñun senegal problème mu service d'accueil lañu am service d'accueil problème boobu lañ am maanaam da ngay dugg police sax da nga fay dugg ñu ñaaxale kersa foo mun a dugg Sénégal da dañ lay mënuñu accueillir nit da ngay dugg hôpital am métit ñëw ki jaay ticket moo lay njëkk a jaay reewande lan la lu la daal bu dee jigéen lu la daal e eh, taxawal nee barki yonent bi nga dugg ñëw nekk si métit ñëw ki lay faj di la jaay affaire wala muy wax barki rasulullah <laughs> mu ne e yow barki yonent bi lu gën a metti loolu amul gis nga barki yonent yàlla moo met ñun yóbbu nañ yóbbu nañ malaat Fann malade bi dafa amoon AVC ñu toog di xaar neurologue 17h ba 20 la neurologue bi ñëw barki alxuraanul karim pour te dire rek Sénégal santé bi li mu sooxee dafa bëri lii fi am nii nag dàq nañ directeur hôpital bi dañoo waroon dàqaale le directeur des établissements de santé public le directeur des établissements publics de santé dañ ko waroon dàq ministre bi daa waroon démissionné daa waroon démissionné ministre bi. da bu démissionné dañ ko waroon a dàq parce que am na yoo xamante ne nii mënul am ci benn secteur ñu koy maay defal ndox ñu koy ñu koy bàyyi muy ñu koy seetaan nii dafa ñaaw santé bi li ci nekk li ci lajj dafa bari te ñoom ñu ngi toog di ko seetaan te leer na leen kon ministre bu ñu ko mënul dàq na xoolaat liggéeyam wax dëgg yàlla nit ñi dee ci hôpitaux yu bari nañ ba pare dafa xewi nous sommes en 2021 nous sommes en 2022 maa ngi jégalu nous sommes en 2022 au Sénégal wala à Dakar nit di fi am doom di dee au Sénégal nit di fi am doom di dee pour lan te ñu nekk en deux mille vingt deux nous sommes au vingt et am na loo xamante ne dafa xew yi nañ ñu ci jàppale nañ ñu ci bàyyi xel te aussi këyitu jàmbur yi ñuy jàpp di jaay ñu bàyyi ko. këyitu jàmbur daa am këyitu jàmbur yi nit détourné. jàmm damaa mos a am carte d'identité am carte sama life. am nga carte bu rëy kon seetaanoo yow suivre li xew yow yow dëkk baa ngi toj léegi après dinaa la defaral suivi bi dinaa la wax li des mais daal mbir la boo xamante ne nii nañ ko bàyyiwaat xel nañ bàyyiwaat xel moom maa ngi lay gërëm bu baax. maa ngi kontaan bu baax a ku ñàkk ñaan nga. yow ku oyof nga nit ku baax nga yàlla na yàlla sàmm la yàlla defal la jàmm moo métier bi yàlla nga ci am lu raw lu ci HBK am ci barke Seydina Mohamed yàlla nga ci am ndam ci barke weeru koor gi. sama frère nga te dama koy wax saa su nekk yow ak yeneen frères yi ci nekk yëpp Lamine Babacar Sita Wasaare Jili ñëpp maa leen di bëggee bu baax baax di leen siyaar ndax ñu ñaax ki ñaan ngeen Malick mool na waaw kontaan naa bu baax a baax kontaan ci sa teewaay ci kafe gi macha allah kontaan naa. macha allah yaakaar naa ne am na solo trop tey Baye Fall bi leen jël si woon fii ci kafe gi ci konu jamono macha allah yaakaar naa ne mu nekk fi. am fi taxawaay bu am solo am fi bu am solo tey yaakaar naa ne tardel nañ lu bëree bëri si liggéeyam macha allah mais lépp ci disponibilité bi di ko sant bu baax a baax di ko gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon ci seen lamb TV ci beneen daanaan jërëjëf jaajëf